maa ngi nii di euh, donc euh, actuellement yéen a ngi ci euh, DKR 221 comme ni ngeen ko xamee ngeen ànd ak Coromaxu Mandela ci live bi démb ba tey ji ñuy ànd rek ci li nga xam ne moom moo xew ca diwaanu Saint-Louis mu di nag loo xam ne ni ñun ñëpp àndandoo mu tooyal suñu xol mais aussi mu nekk ay violence yoo xam ne nii askanu Sénégal comme ni ma koy waxee tous les jours waratuñ koo dund waratuñoo seetaan ñu koy dund te it képp koo xam ne nii rek dangaa war a wax ci lu nu mel war ngaa jóg une bonne fois pour toutes pour ñu wax ci mbir mi maanaam euh, décrier li nga xam ne tey jii moom mooy violence bi am bi waa kër sàmm sa kàddu xaw ma coalition sàmm sa kàddu waa kër Barthélemy médiage dem jóge Ndakaaru ba Saint-Louis dem jël violence di ko exercer ci kaw la population bi dëkk tey jii ci Saint-Louis mu nekk nag des choses yoo xam ne nii waratuñ ci dellusi donc moom moo tax ñu ànd ak sunu mbokk sunu xarit le grand combattant comme ni ma koy tàmm di waxee mu bokk ci ñi nga xam ne bi Sénégal soxlaa aussi dañoo taxaw temm muy Gas El Salvador ngeen xam ko bu baax a baax a baax ci diwaanu Saint-Louis ak li ko wër lépp lu euh, askanu Saint-Louis mës a soxla wala lu ñu mës a nekk ci combat wala leneen moom gas moom moo jiite lu ñu mel donc Gas El Salvador moom ngeen di àndal en direct ci DKR 221 pour ñu euh, def le point li nga xam ne tey jii moom moo am démb ba tey jii ci arrestation yi nga xam ne ñu ngi koy dégg Gas ñu ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyoo ak mbokk internet yu DKR 221. waaw Thioro maa ngi lay jaar di jaar auditeur DKR 221. Mhm. di leen bëggee di am mu kontaan di dugg ci biir ligne bi. parce que si di leen partager information yi nga xamante ni taataan nañ ko fii ci Saint-Louis depuis hier bu euh, nekk nag lu doy waar euh, parce que démb euh, bi ñu toogee ba ngoon gi mhm. la ma woo téléphone na ma marchand ambulant yi woo ma téléphone comme foofu ñu ñëpp yor nañ sama numéro nañu dañoo victime agression ba si ñoom am nañu bëri yóbbu nañ leen hôpital mhm. aussitôt ci laa woo le le Euh, Yacine Samb nga xam te ne moom mooy candidat Pastef bi nekk fii moom euh, woo ko ne euh, woo la commandant gendarmerie ak police bi expliqué leen situation bi ma ne ko ya ma ne Yacine nan dem daje ji fa nga xam te ni moom mooy sa marché ba ñu waxtaan ñu dem seeti ji ñi xam te ni am na situation bi bi mu ñëwee ñu fekk marché bi tasaaroo ñu jël ay bagage yu jàmbur takk leen dam ay banteloo jàmb ñenn ñu tuur leen ban gaañu ñenn ñu sàcc seen ay xaalis ñenn ñu jot leen évacuer yóbbu leen hôpital biir loolu ñëw nañ waxaan na ñoom après dem hôpital fekk ji leen bi mu ñëwee sax si biir hôpital bi euh, li ci gënoon garaaw loolu bëgg naa ko dénoncer mooy am na ci ay néew yoo xam ne ñëwoon nañ biir hôpital di faju bi mu ñëwee euh, wax nañu ki nga xam moo ko doon faj ñu leen seen tur la ñu soxla mais nangu ñu jox seen tur nee nañ dañoo ñëw rek faju dem loolu la ñu wax dañoo ñëw faju dem ma ne leen lu ngeen wax ni amul parce que hôpital képp ku fi faju dinañ la laaj sa tur laaj la fa nga def donc bu fekkee ne bi moment même moment boobu noonu am na ñu ay joxantal yi dañ leen jam ay six jam-jam ci seen ay tànk yeeg yooyu ñu taxaw foofu foofu tuuti gas. mu mel ni danga ne dafa am nervi yoo xam ne aussi am nañu blessure ñëw ci hôpital bi ngir faju yéen ngeen dem pour am information par rapport ak nervi yi fa ñëwoon ñoom hôpital bi am ñenn ñu bañ pour jox leen joxe seen tour effectivement noonu la demee sax hôpital bi su boppam bi ñu ñëwee ñu ne ñu ñu ñu ñu mais bi ñu ñëwee di laaj médecin yi fa nekkoon nekk euh, nan la tudd jox ñu turam wala identification sax il paraît sax ñu ko làq si biir am na ko ma wax loolu mais jotuma ko gis mais daal indi nañ ko fa ba léegi joxuñu identification ci biir loolu nag la ñu dem police jël ñi nga xamante ni moom mooy marchand ambulant yi ne leen nañ dem defee ci jëm ñu certificat médical bi ñu ko defee ñun ñu dem euh, hôpital jël seen euh, Pastef Saint-Louis yu taxaw leen jël en charge bépp bi nga xamante ni moo nekk foofu noonu jël jël leen en charge ñu dem police bi ñu demee police boobu dara xewul te te ñoom bi ñu ñëwee nerf yi bi ñu ñëwee def li ñuy def oto police bi ñu ngi woon foofu taxaw bi bi bi bi am am na benn oto police bu taxawoon foofu ci marché bi donc. oto bi taxawoon ci marché bi est-ce que moom à temps jéem nañu réagir ñoom ñi fa nekkoon wala seen effectivement doyul wala. réagir wuñu bi ñu ñëwee oto police bi réagir parce que marché bi toujours day am oto police oto police bi réagir mais nag bi après ñun ñëwaat nañu ba ci commissariat bi commissaire bi wax ni ñoo nag yoroon oto bi wax ni. boobu éléments yi ñoom bëri wuñu woon quoi nee nañ xam ay deux personnes lañ woon dañ doon def ronde rek ci marché bi fa tombé ci ci ñoom ci ñu wax léegi nag si euh, la ñu woo ki nga xam te ni moom mooy chef de bi chef de poste bi jël suñu déclaration yëpp jéppal ko ko léegi bu ñu jël ko ko te la te la rendre compte commissaire bi commissaire bi bàyyi liggéey bàyyi li mu doon def yëpp ñëw di ñëw ñëw ñëw ci police bi ba vingt deux heures commissaire bi ñu ngi ci biir police bi mais bi ñu toogee man ak moom déclaration bi def na post Facebook bi bi ñu ko defee nag si la affaire yi nag gën a takkarnaase si lañ gën a gën gën a activé la police pour pour pour les arrestations ci biir loolu nag indi wax nañ ñu wax leen ñu ñan ak ñan la ñu xàmmee ak ñan ñu wax leen ñi xam ne ni xàmmee nañ leen dem nañ leen jëli ji ci guddi gi am na sax benn député bi nga xam ne ni fii la def si saint ci la bokk actuellement mi ngi foofu ñu téye donc ak ñeneen ak ñeneen parce que ñoo ñii dañoo ñëw pour braquer coro dañuy dugg la nekk dem seen yoon presque braquage lañ doon laa bëgg bala ñuy dugg ci arrestation yi ak yooyu dama bëgg nga décriral ma maanaam yàqu-yàqu yi fa nekk non seulement violence bi ñu exercer ci kaw sénégalais yi yàq ñii ñu dagg seeni ay loxo ñii seen poj gis nañu ko deret di sang leen mais aussi ñaata yàq-yàq parce que dégg naa ay sàcc yu fa am yu bari. waaw xayma te réalisateur bi dugg na ci biir bureau bi. di mhm. nga gis ne euh, am na koo xam ne bi ñëwee directement dafa dem ci comptoir bi jël jël jël bi de comptoir bi dem te waa ji nee bi nee na xamul la ca nekk mais ëpp ba ci maire bi doon jaay ànd ci kii bi nee xaalis lu mu yoroon yëpp la ñu yóbbu daanaka dañoo ravagé marché bi yëpp la fa nekkoon ci ci ci ay xaalis yóbbaale bi ñuy dem ñii ay sàcc lañ c'est des c'est des braqueurs c'est des agresseurs ba pare blessures yi Euh, li ñu blessé ci ay nit lu mu néew déew ëpp na vingt personnes yoo xamante ni ñoom ñëpp dem nañu hôpital faju ji euh, léegi nag tey ji si euh, nga xamante moom mooy déposition plainte bi ñoom regroupé wu nañ def huit plainte pour l'instant am na si ñeneen ñoo xamante ni dem ñu ngi dem wuti si certificat médical xam naa plainte yi dina dépassé douze plainte mais daal dama koy juree enregistré nañu police enregistré na huit plainte huit plainte yi mu enregistré am na si benn boo xamante ni neuvième bi moom mi ngi mi Euh, moom moo fa am léegi euh, ki nga xam te ne aussi moom mooy euh, man ak la candidate Pastef aussi ñun def nañu suñu suñu plainte dañuy xaar confirmation bi ci kanam def nañu jël nañ image yëpp teg ko ci clé boole ko ak ak li nga xam moom mooy plainte bi dugal ko ki nga xam moom mooy police donc tey na ce matin ñun bi ñu yowoo mhm. dañoo ñëw gis waa BIP waa BIP ñëw indiale seen ñaari dragon yi ba pare lu tolloog ay dizaine de voitures indi ay nit unité euh, de police bi ñu nekk quatre vingt et un personnes ci biir quatre vingt et un personnes yi euh, ñu ngi leen di entendre nii ba léegi ne jeexagul dégg naa ci nag turu Assane Diouf mais wóoruma parce que gisuma ko mais euh, am na ci benn élément bu ma gis mu ne ma Assane si la bokk mais man gisuma ko mais bu fekkee ni après dem naa fa parce que war nañ fa delluwaat mu ci amee confirmation dinaa leen ko wax mais Assane Diouf Coro moom moo déclenché xeex comment si boppam. Mhm. Assane Diouf moo déclenché xeex Euh, bi ñu rombee ñoom booy sonkorisé leen parce que marchand ambulant yi ñoom sonko loon àndal si ñoom ñëpp marchand ci kaw oto bi ne leen wax sonko dinañ nangam taan sa ndey mhm. a garaaw bi la ñeex mais dañ doon dugg ba euh, euh, mhm. ak marché bi sori nañu comme comme dañ doon dañ doon dañ doon fuut léegi nag ñoom nii nii nii fees dal gili bi ci ci ci ñu ngi foofu toog. Euh, presque quatre vingt une personnes yoo xam ne arrêté nañu leen euh, ci loo xam ne wóoragul ci information dont Assane Diouf la ñu waxagum pour l'instant instant ñu ngi leen di ñu ngi leen di entendre mais. Euh, démb aussi gis nañu ay vidéo yuy circuler presque ay une heure deux heures du matin la BIP daal di euh, daanaka euh, convoi woowu ki nga xam ne moom mooy Barthélemy Diaz ak bu ñoom buggaan ñu arrêté leen fii ci wetu Sébikotane ci àllu kaañ bi ah est-ce que foofu noonu amoon na arrestation ci loo leen yëg wala déet. waaw ñooñu noonu nag dañ leen arrêté duñu indi parce que fee bi Saint-Louis la amee. Mhm. ñooñu leen indi Saint-Louis au ñoom la ñu transféré indi leen biir Saint-Louis. Mhm. actuellement ñoom ñoo nekk fii mooy garde rapproché yi ak nerf yi nga xam ne ñoom la ñu àndaloon te li ci gën a garaaw. dañ yor dañoo yor ay armes yoo xamante ni coow police sax yoo ay ay grenade la bëgg naa nga dikkal ma ci armes yooyu parce que il faut askanu Sénégal aussi bi ñuy déglu xam ne ñii ay gangster lañu ay ay gangster lañu coow boo xoolee coow ay ay ay ay ay décharge électrique lañu yor ay jaasi ay paak grenade lacrymogène yor lépp luy matériel bu sophistiqué boo xamante ni euh, euh, bande agression dañ koy yor ñoom yor nañ ko yooyu actuellement nag police rang na yooyu noonu yëpp ak seen sage yeeg noonu yëpp cest à ñoom amuñu fenn fu ñu mën a rëccee parce que li ñu li police ranglee foofu noonu ci ay bagage arme yoo xamante ni ñoom moom moom fekk seen oto yi même seen oto bi sax indi nañ ko seen pick-up bi ñu ko defoon seen pick-up bi ñu ngi si bind sàmm sa kàddu pick-up bi ñu ngi foofu noonu biir police boole nañ si éléments yi nga xamante moom la ñu sele mi ngi mi foofu ak ay seen ay euh, téléphone ak yooyu noonu yëpp ba pare ci biir vidéo yi euh, ñoom ñu si bëri tey identifié nañ leen ci biir vidéo yi te bi ñuy départ Euh, ñu ngi ànd ak Anta Babacar Ngom parmi ci éléments yu mu jàpp fii euh, am na ci benn bureau sax biy circulé Anta Babacar Ngom di récupérer seen carte d'identité yi donc ñoom ñoo leen recruter c'est des recruteurs de nervi yi ñoom ñoo leen recruter pour ñuy ñoom nag dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy ne dañuy xëpp ci ci ci ci ci ci ci cere ji euh, suuf comme xam na ni dañuy ñàkk élection c'est des mauvais perdants léegi nag fi ñu doon nii Saint-Louisien yi leen bàyyi parce que waa marché fi nee nañ ci kanam tuuti nii dañ def déclaration bi ñuy a déclaration lépp li xam ne ni euh, perte euh, am nañ ko ci ay perte ak lépp li xam ne ni am nañ ko ci ay blessé dinañ koo wax xam naa incha allah bu ma demee di def ji bi ñu bien euh, plus de vingt personnes wala vingt personne moom nga wax ñoo ñàkk ñoom lañu ñu joxagum jafagum ay gaañ-gaañ ak sàcc seen alal mais pour l'instant neuf personnes ñoom ñoo déposé gum plainte waaw neuf personnes ñoo déposé gum ñeneen ñi des instant d'accord mais mais mais li ñuy dégg ci kaw dañu doon traqué Barthélemy Diaz mu jaar ci àll bi daw parce que nag am na ci suñu ay mbokk taskatu xibaar yoo xam ne ñu ngi woon ci lieu yi ñu ne moom dafa wàññeeku ak convoi am Bougane aussi de même ñoom ci leader yi ñu ci bari danoo wàññeeku ak seen convoi jaar ci àll bi daw mais est-ce que actuellement am ngeen benn euh, euh, information comme quoi am na ci ñoom ku ñuy traqué actuellement wala ku ñuy wër wala ku daw wala ku làq foofu biir Saint-Louis. Euh, waaw leader yi non parce que man bi ma dégganteeg le le comité central de Saint-Louis bi mu xoolee situation bi. même dafa ne moom man géral mu ñu nekk Saint bi ñi nga xamante ni xam nañ nga leen mais ñeneen ñi def képp ñi nga xamante ni ànd nga ak euh, le leader ak le leader bi ñëpp leen jàpp man loolu la moo expliqué donc bu ma nekk doon nañ leen jéem a jàpp ñu daw si àll bi mun naa gëm parce que bi ma ko euh, bi ma ko euh, commissaire bi wax boobu lii amagul te aussi boobu le directeur directeur kii directeur général police bi ni nga ko doon moo ñu ñaar ñu ngi déggante donc bu ma nee ñoom Barthélémy Dias ñu ngi leen doon jéem a traqué pour jàpp leen bu naa gëm loolu mais en tout benn leader benn leader gisaguñ benn leader bu ñu jàpp euh, ak seen euh, daal rapproché yi ñoo xam te ni interpellé nañ leen indi nañ na ay vidéo yi yu firndeel ni ñu ngi indi fii nii ñoom ñoo ñi ñu jàpp ni ñoom euh, gas aussi nga jàngat en tant que citoyen sénégalais nga jàngat ci kaw benn leader politique wala sax benn candidat boo xam ne dafa war a jóge Ndakaaru dem Saint-Louis jël ay bus def ci ay nervi ba mu fees pour yóbbu leen ba Saint-Louis ndax politique rek loolu ban jàngat nga ci def en tant que citoyen simple. Euh, jàngat bi ma ci am moom mooy ñoom wax nañ ko depuis le début dañ ñëw ko saboté parce que xam na ni ñàkk nañu élection yi xam nañ ni euh, ñoom ñoom ay mauvais perdants la donc nag léegi man euh, li may wax toujours ñun patriotes yi mënuñoo nekk ci opposition di xeex ñu ñuy tóor di ñu tëj di ñu gaañ. ñu ñëwaat au pouvoir les le choses se répètent franchement dafay neexul dafa métti ci xol dëgg la euh, nit ki euh, waroo ko war war ñu répondre euh, la violence par la violence mais aussi am na xam ne bu ñu ci toolee coro foog ñu foog ñu ñu ñu jël lépp teg ko ci benn balance su ne xam boppam parce que état aussi da nga war a nekk état bu bu fort bu ko defee nga mën a garantie sécurité nit ñi parce que ba Lamine Dia li mu nekkee ci dëkk bi dañ ko li mu nekkee wax dëgg yàlla dafa ko fay fayal ba mu am ci benn euh, ba mu fi ba mu fi semé téere en fait ba ba nit ñi nekk mu nekk benn benn euh, comment dirais-je euh, mu nekk koo xam la violence